agence ñu naan leen demal ci agence ba defante leen kook ñoom ñu fay leen seen xaalis parce que seen xaalis ngeen fa bàyyi mënu la dénk sama xaalis nga téel ma ko ba pare nga naan ma Tamba nga koy faye ko wala Kolda nga koy faye wala Ziguinchor nga koy faye ko loolu bu leen ko nangu beneen bi mooy suppression guichet unique bi li muy indi dafa gàllankoor yi mu indi dafa bëri carte gab bi obligatoire te sénégalais yëpp lay doon bu ci gën a ndaw obligatoire lay doon te cent quatre-vingt mille lañ koy jaayee loolu lañ ci préparé

bu ci njëkk moy len banque bo bi ma xamal soxla bi parce que bu banque yépp def préparé nañ la xaar déjà la xaar verdict pour que gënaaw suba mu généraliser sur l'ensemble du territoire national bu jallé ñen ñëpp def légui on va vers des confrontations avec cette banque comme d'autant plus que la justice s'est déclarée incompétente te procédure judiciaire bi tam dañ continuer. Euh, yaa ngi ah. tamit war ngeen leen mën a taxaw ñoom it ku ci bëgg dem banque ngeen gunge ko. amul benn usager boo xam ne say revenu nekkoo millionnaire wala milliardaire bu mën a soutenir projet. xool leen ñun ñetti weer ñu ci daw temps bi ñu jël ba pare alal ju jël dugal ko ci ñu ñëw pour wax ñu ni amuñu compétence loolu ban salarié moo ko mën ban revenu modeste moo ko mën il faut que nga yor ay milliards pour mën a indi banque tribunal boo ko amul bàyyi naa ko ak yàlla ngay mujj bàyyi naa kook yàlla rek ku nekk togg benn instant chaque jour yaa ngi naan bàyyi naa kook yàlla yàlla baax na dafa war a jeex nañ ko defanteeg ñoom te ñun danañ ko defanteeg ñoom ba mu ba ba fu baax ba ba justice wala état wala police wala gendarmerie jël ay responsabilité am ñu xam ne noonu la ko yàlla dogalee. question bu mujj ko yoon waaw danañ dem dañuy épuiser voie yëpp duñ ko bàyyi mais itam ñaar yëpp dañ koy def benn danañ dem ak yoon parce que. petite euh, euh, euh, tribunal d' instance nee na mënul grande instance nena na mënul danañ xool ak suñuy avocat yenen voix mais téwul képp ku ci dem banque ñu wax la naka nonu noonu defante kook ñoom nañ la fay sa xaliss parce que tam nit ki mënoo ko mënu la ne kaay ma téel la sa xaliss mu téel lako ba paré mu naan la Kolda Ziguinchor Tamba nga fayé ko ba paré chèque bu mu la jox mu ngi ci bind payable en toute agence moy danaka fep foo dem ñu fay la ko loolu dafa wara a jeex te danañ ko xex ba mu jeex